سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أهمة الشيخ يحضر لنا بهذا المحضر والتعطفي بنزرة تأتي لنا بزفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جيجل نوي باكي أنا كنك تي ترامك جمم دي جيجلو باخ باخ تاي دانيو خوان أم جفة جفة كونكشن توتي خوما غاي دانيو نك تي ريباراسيون خوما أي ترابو دونكو موتخ ألو من نيو تامبالي ديريكتما إن شاء الله بو فيكي يانيك ميدي نيو بارتاجي إكران بي baal leen ma ngeen def machine bu fekke yéen a gis écran bi s'il vous plaît. Hello, salaamaaleykum yaa Seydi ñu ngi gis écran bi. Seydi na ngeen def mbaa nekk ci jamm. sant bu baax wa alhamdulilah sant bu baax wa. alhamdulilah alors tay euh, dañuy départ ci fi ñu yemoon semaine passée muy samedi bi ñu génn yaakaar naa ñu ngi doon jàng lu eh, ñuy tuddee hadith muallal manam hadith bu am illa alors tay hadith bi ñuy jàng moy hadith musalsal hadith musalsal bon premièrement définition hadith musalsal moy lan bu fekke amna kenn ko tewlu ci yéen mën nañu mën na ubbi micro salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah yaa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah alhamdulilah. xadis euh, xadis euh, bi nga xamante ne en fait dafa am benn euh, pattern en fait. Mhm. boo xam ne transmetteurs yi en fait dañ koy dundal au fil des transmissions. Mhm. supposons par exemple yow nga jëlee woon par exemple Cheikh Mahi. Mhm. nga ma jëlee ci yow benn xadis boo xam ne yaa ngi ko jëlee ci Cheikh Mahi Cheikh Mahi jëlee ko ci Seydi Xasan Seydi Xasan jëlee ko ci Baay supposons par exemple euh, bañet dafa wote di xali mu ñew mu tey loxom ba paré wax ko ben affaire mhm. wax ko ben hadith mhm. sayyidi ali tamit bu ñu netali lool cheikh mahi cissé wo ko comme niko bañes defé won mu tey loxom tamit niko bañes defé netali ko hadith bi mhm. yowit cheikh mahi tamit bu lay netali hadith bi def lool tamit yowit bo ma kay transmettre tamit nga wo comme nonu cheikh mahi wowe nga tey sama loxo

lu niroo luy niroo ba pare di di répété wu alors mu ne at tasalsulu huwa ibaratun an tasalsuli rijaali lisnaadi jamiihim ala sifatin aw xaalatin waaxida wa taaratan takunu sifatan euh, li riwaayati wa taaratan takunu sifatan li ruwaati maanaam bu ñu waxee tasalsul mooy euh, les gens yi nekk ci chaîne de transmission bi ñu bokk dajoo ci benn melo léeg-léeg mën na nekk melo boobu noonu ci jëmmi riwaaya bi la nekk léeg-léeg melo boobu noonu ci ñoom raawi yi la nekk qu'est-ce bu fekkee ne melo bi ci jëmmi riwaaya bi la nekk mooy comme ma ne la euh, yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xadis boobu mu wax ne ñi wax ne wax na ko Muaz Seydina Muaz ibnu Jabal ne ko inni uhibbuka yaa Muaz ba pare daal di ko am lu mu ko dénk ne ko saay boo jullee del wax nangam ak nangam léegi Muaz tamit bi mu ñëwee di ko nettali taalibeem bi mu ne ko inni uhibbuka daal di ko wax li ko yonent bi waxoon ne ko saay boo jullee defal nangam ak nangam ñëwaat tamit kooku taalibeem boobu bi mu koy nettali taalibe bi ne ko inni uhibbuka donc da gis ne foofu baatu inni baatu inni uhibbuka bi moom mooy am tasalsul donc ci jëmmi riwaaya bi la nekk ci biir wax ji la nekk alors bu fekkee ne nag dangaa jël comme ñu ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme définition bi nga joxe léegi Moussa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw téye loxo Baye Baye Niass daal di ko wax dara Baye Niass ñëw tiye loxo Seydi Ali daal di ko wax dara Seydi Ali ñëw téye loxo Cheikh Mahi daal di ko wax dara Cheikh Mahi bi muy wax bi may nettali wax ji mu téye sama loxo man tamit donc booba jëf ji ci raawi yi la nekk ci ruwa am maanaam ci seen ci ñoom personne bi la nekk pas ci euh, parole bi y a une petite y a y entre les loolu tax mu ne la taaratan takunu sifatan li riwaaya wa taaratan sifatan li ruwaati maanaam léeg-léeg mën na nekk sifa bu nekk ci jëmmi riwaaya bi léeg-léeg mu nekk sifa bu nekk ci raawe yi ci seen bopp ñoom alors <clears throat> da gis léeg-léeg sax ci dafa mel ni sañu suñu kii Facebook bi dafa xaw a fulu xaw ma lu tax bon sa que ça va ça doit da ngay gis par exemple ci bayquuniya je crois bayquuniya la mu naan la musalsalun qul ma ala wasfin ata مثل مثل أما والله أنبأنا الفتى ولا نحو أما والله أنبأنا الفتى مسلسل mooy loo xamante ne dafa ñëw ci wasfu ci melo mooy sifa bi mu wax fi comme par exemple nga ne أما والله أنبأنا فلان léegi yow tamit ba nga koy nettali nga ne amaa wallahi am ba ana fulaan kee tamit ba nga koy nettali mu ne amaa wallahi am ba ana fulaan baatu bu boobaa baatu amaa wallahi boobu noonu comme ni ma leen jox exemple ci inni <coughs> ni ma leen léegi exemple ci inni uhibbuka yaa Muaz bi boobaa boobu mooy nekk tasalsul bi naka noonu mu ne je crois ci bay xonee ba léegi mu ne euh, kaza qad haddasanihi qaa'iman aw baada an haddathanihi tabassama yaakaar naa bayt mi noonu la su ma juumul xaw naa cee gëj trop ça doit faire 17 ans wala lu ko lu ko ëpp mais yaakaar naa bayt bi noonu la musalsalun qul ma qul ma ala wasfin ata nahwa ama wallahi am ba'ana alfata kaza qad haddasanihi qaa'ima aw ba'da ma haddasanihi tabassama mu ne musalsal mooy loo xamante ne ni dafa ñëw ànd ak melo car par exemple comme nga ne ama euh, wallahi di wax na ma nàngam wala mu ne la bi ma koy nettali dafa jóg taxaw wala bi ma ko nettalee ba pare dafa daal di muuñ wala mu reetaan booba wasfu la ci raawi bi bale ci kaw ndax ma ama wallahi am baanal fataa wasfu la ci riwaaya bi بون دابيتود دابيتود فاصون فاصون حديث مسلسلي اك روايه مسلسلاتي امنا اي حديث نيوي نونو امنا بروم خام خامي يعني سيرتين نوم دا حديث بون سي جوخي مي امنا نيوي واخ ني مبولم حديث مسلسلي اي ضعيف لاني ولا يجي اوب 99% اي ضعيف لاني مانام دو ني حديث بي موي ضعيف مي تسلسل بي مو ويرول يا يعني il faut il faut comprendre xadis bi mën na wér mais tasalsul biñ ci wax wérul lan mooy loolu par exemple bu fekkee tasalsul bi nekk ci xadis bi tasalsul la ci riwaaya bi mooy inni uhibbuka yaa Muaz par exemple ma ne la yonent bi nee na Muaz ibnu Jabal saay boo sëlmalee julli deel wax allahumma inni kaza wala jàngal ayatul kursi léegi xadis boobu jëmmi xadis boobu mën na wér waaye tasalsul bi ci nekk mooy inni uhibbuka boobu wérul que ne yonent bi noonu la ko ko waxee moom tamit waxee ko taalibeem bi noonu koo tamit waxee ko taalibeem bi noonu naka noonu bu fekkee tasalsul la ci raawi bi par exemple ne la yonent bi dafa téye loxoom moo tamit bi mu ñëwee téye loxo sëriñ bi sëriñ bi téye sama loxo boobaa hadis bi mën na wér mais tasalsul bi tasalsul bi wérul excusez-moi je suis obligé de revenir souvent ci pour xool ndax amul ñu nekk ci salle d'attente bi léeg-léeg nit ñi yàgg fi torop maa ngi ciy jéggalu bu baax xadis bi mën na wér bu boobaa mais tasalsul bi du wér donc buñ ne xadis musalsal yëpp wérul bul ci déggee ne jëmmi xadis bi ci boppam moo wérul maanaam tasalsul bi mooy bañ a wér exemple ma la tey ji comme sufiyanke yi léeg-léeg dañuy joxe ay secret ay yu mel noonu ma ne la am na benn secret boo xamante ne ni euh, sëriñ bi bi ma koy jox dafa summi mbaxanaam bi nee na moom tamit sëriñ am bi mu ko koy Seydi Ali bi mu koy jox dafa summi mbaxanaam Seydi Ali tamit nee na bàyyi bi mu koy jox dafa summi mbaxanaam maanaam jox gi ma sëriñ bi jox siro bi mën na wér mais baatu summi mbaxana boobu mën na bañ a wér xëy na moom dafa summi woon mbaxana bi pour beneen cause xëy na dafa tàngoon xëy na il avait juste envie d'enlever d'enlever la mbaxana qu'importe mais mën na bañ a am rapport ak ak secret bi mu ma jox est-ce que vous comprenez un peu voilà wala ma ne la bi mu ma joxee xadis bi bi ma nettalee xadis bi daf maa daf maa jox loxo jox il m'a serré la main mais xëy na serré la main ça n'a rien à voir avec jëmmi hadith bi ma jox il avait juste envie de me serrer la main pour pour me dire au revoir et peut-être moom tamit bi ko koy sëriñam bi jox daf ko serré la main juste pour lui dire au revoir donc concours de circonstances bu dajee kese mais ça n'a aucun rapport avec secret que mu ma jox wala hadith bi ma jox vous comprenez un peu donc loolu moo tax léeg-léeg xadis mën na wér waaye tasalsul bi ci ñëw du wér ñu ne la lii musalsal bi wérul bu fekkee nag nga dajeeg benn euh, benn Moussa boo xamante ne dafay doog a dal jàng xadis bees mu ne la ayca da ngaa weddi sama sëriñ da ngaa weddi sama xadis bu sama sëriñ indi ya axi ya axi bon <clears throat> mu ngi mel ni par exemple <clears throat> benn benn masala bu ñu wax démb ci ci ci Facebook ci affaire euh, fait 43 semaines. Madame, j'ai vu des gens qui, sont venus en privé comme certains en public me dire que c'est une diou wahna ne deux ans madame 24 mois voire ça 4 ans voilà ça 5 ans vous imaginez manam jigen mën na ëmb 208 semaines bon léegi yow boo waxee ne jigen mënta ëmb entre parenthèses ah, boo waxee ne jigen mënta ëmb maanaam durée maximale d'une grossesse 43 semaines la c'est parce que am na ci gynécologue yi wala ci médecin yi ñuy wax ne treizième euh, mois day am léeg-léeg grossesse euh, prolongée prolongée mën na am mais tu vois des gens yu ñëw ne la man sama jabar ëmb na wala gis xam naa ko ëmb 10 mois yaa ax yi dix mois ñaata semaine la dix mois ñaata semaine la mais mais am na ñoo xamante ne xëy na seen xalaat du leen yóbbu foofu dañuy jàpp ne yow da ngaa bëgg a weddi seen sëriñ ñoom wala da ngaa bëgg a weddi sa sëriñ yow wala da ngaa bëgg a weddi wàllu yàlla sàngam wala imaam sàngam bi ñu wax ci moom ne yaayam ëmb na waaye juróom ëmb na ko euh, cinq ans wala quatre ans wala dix ans vous imaginez ñu ne la sëriñ diw nekk na ci biir waaye juróom dix ans am na yoo xamante ne même bu ko même bu ko karaama nangoo xel moo ko dul nangu en ba doomi aadama war ko mën a wax parce que bu fekkoon ne ngëneel la bu doon loolu ngëneel la konoon yàlla defal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala defal ko yonent yi amul benn yonent bu ko yàlla defal amul yonentu yàlla isa dañ la ci indi indil yonentu yàlla isa amul benn xadis benn benn bu wér wala benn aaya alxuraan bu lay déterminer durée bi ñu ko ëmb ñaata temps la amul rawatina aaya alxuraan xadis on peut inventer ce qu'on veut mais amul benn aaya alquran bu lay bu lay déterminer durée bi ko yaayam am bu ñaata temps la dafa wax rek fa xamalatu fantabasat bihi makaanan qasiya fa ajaaha almaxaadu ila jizli naxlati fa xamalatu mu ëmb ko bon fa xamalatu xëy na diggante bi on sait on sait léeg-léeg alquran ni muy waxee alxuraan mën na day synthétiser ñëwul du la wax naan ëmb na ko 5 mois ëmb na ko 7 mois wala 9 mois donc amul benn durée bu alxuraan déterminé que ne yonentu yàlla Isa ëmb nañ ko une seconde wala 2 minutes wala 4 mois wala 6 mois wala 3 semaines maintenant buñ ne la imam Malik ëmb nañ ko 4 ans d'abord lan moy dalil bu koy saxal on doit se poser cette question lan moy dalil buy saxal ne imam Malik ëmb nañ ko 4 ans ndax dalil bi moy diw sàngam nettali nako ci téré diw sàngam nettali nako ci téré mais loolu du dalil en fait loolu du dalil loolu. parole la contre parole wala nettali la bu nit déggee ci nit bon ñi xam ñi xam xam nañ ne xam nañ li may wax quand on parle ñi jàng usul surtout dinañ comprendre li may wax loolu du dalil ñi jàngul usul nag wax dëgg yàlla dañuy jëfee waxat léeg-léeg parce que di nga wax ak nit ki ne ko nangam dalil la moom xàmmeewul luy dalil ak lu dalil loolu moo tax jàng usulul fiq entre parenthèse encore ci biir parenthèse bi loolu moo tax jàng usulul fiq am solo xam nga usulul fiq fànn la boo xamante ne bokk na ci lim lay jàngal mooy comment extraire wala comment déterminer des arguments ci sharia nan ngay mën a argumenter position wala nan ngay mën a génnee àtte ci sharia loolu bokk na ci lu lay usulul fiq di jàngal léeg-léeg dinaay faral di ko awsu billahi min kalimati ana léeg-léeg da ngay dégg ñu ne la am na lu ëpp téeméeri yoon maanaam plus de 100 voix yu ñuy mën a jaar pour génnee argument ci sharia duul rek texte bi nii comme niko suñ doomi badjani di defé lég lég lo wax ñu ne la ana hadith bi wala ana aya bi ko wax du rek texte bi ni dafa am yenen dafa am yenen par exemple amna sarihun nas waye amna mafhumul nas mantuqu nas amna na itamit mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa amna ak bo bo paré ci loolu dilalati zanniyud dilala qat'iyud dilala ak yeneen ak des mille nit ñi di ay euh, xam di ci sharia donc ci loolu ne la diw sangam nettali ci téere manaaxibu imam malik wala ci taarixu imam malik ne ëmb nañ ko ans pas une preuve c'est pas une preuve que imam malik ëmb nañ ko on doit chercher la preuve ailleurs ñaareel bi bu amé sax ñuy dépasser ba naan la ëmb nañ sëriñ diw wala walu yalla diw 10 ans man gis naa sax wala mas naa dégg ko wax ne euh, am na walu yàlla bu ñu ëmb 15 ans ci biiru yaayam maanaam yaayam bi mu amee 15 ans ba bi muy am 4 30 ans da ko ëmb vous imaginez un peu <clears throat> am na yoo xamante ne bëgguma ko wax ci mais daal xam histoire baax na xam histoire xam jamono yooyu fee yi daan am. ak tamit ñi daan dem jihaad te daan yóbbaale seen soxna yi ak lan moo waraloon Seydina Omar radiallahu anhu daal di waxoon saxaaba yi ne leen wala taabee ne yi ku dem jihaad tant de mois boo yóbbaalewul sa soxna boo fa defee tant de mois dellu si waatal Yazid ibnu Muawiya laanatullahi alay bi mu defee waaqiatul xarra ci l'an l'an 62 de l'Hégire on sait ce qui s'est passé à Médine l'année d'après

moom la bébé bi bokk na ci li bébé bi di dundee liquide boobu noonu am na durée boo xamante ne bu ko weesoo dafay expiré wala mu jeex bébé bi dootul amati lu mu dundee wala bu yàqoo bébé bi bu ko naanee du mën a dundu li ma leen di wax nii man dama ci xam dara parce que dafa arrivé ku ma jege mu def temps de grossesse bu dépassé bébé bi judduwul ak euh, judduwul ak bakkan parce que dafa consommé liquide liquide boobu kii bi. li ma leen di wax ni yàggul dara <clears throat> ci quelque weer la war a toll donc soutenir yenn affaires yi dafay tax nit ki dangay def sa mazhab wala da ngay def sa sa école wala da ngay def sa xalaat benn genre masxara boo xamante ne ni nit ñi dañ lay reetaan en surtout ñi jàng jamono ji nga xam ne l'islam du diine dof wax dëgg yàlla du diine dof te àdduna bi léegi ñëpp a ngi lay scruté tu dois boo boo waxee dara tu dois pouvoir dire que war na mën a nekk nga bañ koo tere ci ne yàlla mën na ko bon on sait que wallahu ala kulli shay'in qadir wala inna allah ala kulli shay'in qadir su la neexee nga ne yàlla mën naa taxaw ci bopp jaaro bi wal iyaazu billah su la neexee comme ni ko gars yi di waxee walaw shaa rabbuka lastaqara ala zahri ba'uda yàlla su ko neexoon mu di toog ci ginnaaw euh, ci ginnaaw kii yoo wala ci ginnaaw weñ mouche wala moustique wala pitax wala wala iyaasu billah kan mooy wax loolu wallahu ala kulli shay'in qadir lépp mën na cee dugg mais est ce que wallahu ala kulli shay'in qadir dafa dugg ci biir que ne yàlla mën naa yóndiwaat beneen yonentu ginnaaw yonentu yàlla muhammad ndax wallahu ala kulli shay'in qadir dafa dugg ci biir que ne yàlla mën naa bind beneen yàlla bu dul moom te pourtant yàlla bu ko neexee mën wallahu ala kulli shay'in qadir inna allah ala kulli shay'in qadir ndax yàlla dafay amalaat beneen yàlla لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله لولا القرآن وخ دونك بول دوغال لب كي والله على كل شيء قدير بولون والله على كل شيء قدير يالله بوكو نيه بوديف مسيلمة الكذاب يننت والله على كل شيء قدير يالله منا دوغال إبليس الجنة والله على كل شيء قدير كون إبليس نيكت الكوبان بنكو جابيت الكوبان والله على كل شيء قدير أبلا ابن أبي إبليس الكوبان نيكت الكوبان نيكو جابيت الكوبان parce que wal mën nañoo dem àllaaxira yàlla dugal ko àjjana di lekk alxuraan wax nañu ci moom yonent bi wax nañu ci moom li ñu wax ci moom wallahu ala kulli shay'in qadir abu jahlin mën na dem mën nañu dem bis penc fekk abu jahlin aljanna wallahu ala kulli shay'in qadir lan mooy façon xalaatin bi maanaam ma hazihi turahat nit kuy xalaat lu mel ni souvent wax dëgg yàlla da koy yërëm da nga koy yërëm et souvent na ma yàlla baal mais ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy mbubboo gën a am diine ak gën a jàpp ci diine ak gën a am suluk ci diine moo xam muy suñ doom bàjjani wala muy suñ doom nijaay ñoom ñooy gën a am façon xalaat yu yóomee boo wax mu ne la ye non wala ci buntu karaama la wala buntu kara karaama bu yàlla defal wàlliyu la wala buntu mujjiza bu yàlla defal yonent la wala lii xaybu la xamoo ko bul ko bul ko lijjanti eh bu fekkee lépp lu ñëw lu ñu xamul ñu ne xaybu la kon soxla wutoon ñuy laaj yonent bi benn question ci àdduna et pourtant alxuraan a ngi nii boo ko ubbee mu ngi fees del ak wa yasalunaka ak yasalunaka yonent bi musu leen wax ne lii xaybu la moom bu leen ko laaj mhm. <clears throat> alaa yetti xaal alaa yetti xaal euh, grossesse prolongée mën na am mais jigéen bu ëmb 5 ans wala jigéen bu ëmb 10 ans nañu xool kan mooy bàyyi doom ci nañu xool kan mooy bàyyi doom ji te ñiy wax loolu maanaam li ci yéeme mooy ñiy wax loolu yëpp tey ji ku ci tukki woon ci ñoom ñëw maanaam tukki supposons mu dem Amérique quoi dem yàgg fa amul kayit mu def fa 10 ans mu ñëw fekk soxnaam am doom li muy njëkk a def mooy lijjanti kan mooy bàyyi doom ci loolu lay njëkk a def. du toog naan ko oh wallahu ala kulli shay'in qadir mën naa am sama doom bi ma la fi bàyyee wala bi ma bàyyi woon ci sa biir la ci sa sa ruxam bi may dem ku ko fi def ci ñoom ñoom ñuy wax loolu yëpp nag commencé ko tey ci ngoon nga xool démb am na ku ma wax façon wax bu mel nii ma laaj ko laaj bu mel nii mais ba léegi tontuwul yaakaar naa du tontu mukk maanaam ku ci tukki woon ci ñoom tey def fa trois ans ñëw fekk sa jabar ëmb ba ci nopp ya ëmb huit mois wala neuf mois doo taxaw naan ko non jigéen waa xam ne mën naa ëmb deux ans automatiquement da nga ko naan kan moo jur kii <laughs> man du sama doom léegi le problème mooy pourquoi ñu koy nangul ñeneen ñi te duñ ko nangu ci suñu bopp ñun bu dee ci ñeneen ñi la moom allah ala kulli shay'in qadir yàlla mën na ko yàlla mën naa def wàllu yàlla diw ñu ëmb ko deux ans wàllu yàlla diw ñu ëmb ko dix ans mais yow moom sa jabar mënta ëmb dix ans aha <coughs> donc Euh, yaakaar naa boo delloo ci alfietu la parenthèse est fermée boo delloo ci alfietu alfiyatu iraqi la je crois <coughs> da ngay gis mu naan la musalsalul xadisi ma tawaarada euh, fiihi ruwaatu waaxidan fa waaxida xaalan lahum aw wasfin wala aw wasfi aw sanad ka qawlihim samitu fattaxat alors ci jeexintalu bayt bi je mu ngi wax naan euh, wa wa qallama yaslamu daafan yaxsulu néew na néew na euh, musalsal boo xamante ne mucc na ci daif voilà comme ni ma leen ko waxee borom xam yu bëri nee nañ xadis musalsal yi yëpp ay am nañu wax loolu am nañu wax ne xadis musalsal yi li ci ëpp ay daif lañ ça dépend kenn ku nekk ak gis-gisam musalsal bi ay daif la nag waxuma ne xadis bi ci boppam mooy daif comme ni ma leen ko teqantalee tasalsul bi ci nekk moom la ñuy jublu léeg-léeg waa jëmmi xadis bi comme par exemple xadis bu ñuy wax naan ci suratu safi maanaam jàng suratu safi yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi al-ard ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog saxaaba yi dañu toog am ñu toog ci groupe mais bu ñu xamoon jëf ju yàlla gën a bëgg danañ ko def après bi ñu ñëwee nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi am lu mu leen wax ba pare daal di jàng suratu saf keneen tamit bi mu demee di ko nettali ay taalibeem il a fait la même chose daal di jàng suratu saf je crois que Abdullah ibn Ubay Abdullah ibn Salam la Abdullah ibn Salam موي سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دونك فاصون يو مل نونو اك حديث ابو هريره بي ني واخنان تمو نيك صحيح مسلم كني ابو هريره ينه يونت بي جانغنا ولا تينا لخوم di ko konteel di maanaam di compter ci ay baaraam naan ko yàlla dafa bind nangam bis nangam dafa bind nangam bis nangam xadis boobu siiw boobu ngeen xam euh, bon wax dëgg yàlla man gëw ma wérug xadis boobu aslan gëw ma wérug xadis bi jugee ci yonent xëy na mën na jugee ci kaabul axbaar mais pas ci yonent bi voilà parce que zaaxiru xadis bi dafa uteeg alxuraan ak yeneen ak yeneen dalil yu tax ma ne gëw ma xadis bi. je crois que xam ngeen xadis Moussa mën nga ñu ko xool en attendant ñuy pare après nga yónnee ñu lien bi incha allah après on, on, pourra faire des commentaires là-dessus donc ñu continuer ci voilà xoolaale nga yónnee ñu ko après buñ paree ñu kii ko alors mu ne tasalsul huwa ibaratun an tasalsuli rijali l isnad jamiihim ala sifatin aw xaalatin waxida min mubtada sanadi ila muntaha maanaam commencement wu chaîne bi ba ci jeexintal bi maanaam tey jii bu dee tasalsul bi dafa am ci ñetti nit kese te fekk chaîne de transmission bi cinq personnes la boobaa duñ mën a wax ne xadis bi musalsal la sufiyanke yi nag comme ni ma ko waxee ñoom tasalsul bëri na ci seeni mbir am na tasalsul léeg-léeg sax ci ni ñuy talqiine siru ak ni ñuy joxe yenn affaires yi ak yu mel noonu loolu yeneen domaine la wax dëgg yàlla man gëm naa ci yu baree bari gëm naa ci yu bëree bëri parce que am na yoo xamante ne tamit c'est pas tout le temps du domaine euh, kii rek li ñuy bind ci téere yi voilà après tout euh, la spiritualité mënta ñàkk ci jëmmi doomi aadama ak ci dundam <coughs> am na sax yaakaar naa yoo xamante ne suñ koy jox nit dañuy dañuy dañuy euh, dugalante seen loxo seen baaraam yi nii am na yoo xamante ne seen dënn yi dañuy teglante ainsi de suite waaye voilà وتارة تكون صفة آه، للرواية كمسلسل كالمسلسل بالسماع وهو أن يكون الحديث مرويا آه، أن يكون الحديث المروي قد سرح فيه ولقد سرح فيه كل راو من الرواة بالسماع من شيخه mooy حديث xadis boo تنيني كان كونك تراوي كي نك دافنان سمعت من شيخي كي نيونا سمعت من شيخي كي نيونا سمعت من شيخي بوبا تصريح بالسماع بوبا فاي نك تسلسل بالتصريح بالسماع ولا بالتصريح بالسماع آه ام ليلي من نك تي يينن عباره تميت واي ليلي بي غيس حديث بو خامتني كي دافنان سمعت كي حدثني كي اخبرني كي قال بوبا تسلسل بالدغنا وتارة لرواتي كان يكون جميعهم مصريين par exemple léeg-léeg mën na nekk itamit ci dëkk nga gis xadis boo xamante ne chaîne bi yëpp ay waa Égypte lañ wala ay waa Dakar lañu wala ay waa Medina Baye lañ ma ne la lii xadisu waa Medina la lii xadisu waa Touba la lii xadisu waa euh, Tivaouane la lii xadisu waa Cham la lii xadisu waa Iraq boobaa xadis bi dafay nekk tasalsul bil misriyin wala euh, at tashbik bil yad mooy dugalante loxo yi ma leen wax nii am na am na ay mbir yu ci gars yi di kii ala it xar misaaluhu <clears throat> misaalam mooy comme xadisu qiraatu suratu safxi bi ma leen wax sànq sabaxa lillahi ma fi samawati ma fi ardi wal azizul xakim bi ak xadisu inni uxibuka bi moom laa leen wax sànq ci Muaz ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko ne bëgg naa la bëgg naa la bëgg naa la ba muy ñetti yoon ci benn riwaaya ci benn riwaaya bëgg naa la benn yoon après daal di ko ne ko bul di bul di ñàkk jàng euh, bul di ñàkk a jàng nàngam ginnaaw julli bu nekk allahuma ayinni ala zikrika wa shukrika wa xusni ibadatik voilà c'est bon gis nga kii bi lien bi wala on peut continuer ba ñu ba ñu pare fekk ñu tëj laay fu kii bi alors marfo ak mawquuf ak maqtu am na lu ñu tuddee xadis marfu am na lu ñu tuddee mawquuf am na lu ñu tuddee maqtu <coughs> beneen beneen buntu boppam la

mbokk yi nekk ci Facebook bi di commentaire wax dëgg yàlla je vous respecte beaucoup mais samedi bi ñii nekk ci plateforme bi ñoo leen ko may moo tax ma di leen may live donc c'est pas pour vous pratiquement dañ leen koo may rek donc vous allez beaucoup me comprendre su ma dul tontu seen commentaire yi wala su ma leen dul kii voilà parce que ñii tamit dañoo dañoo inscrire wu di fay di kii dañ leen a may rek pour ma leen defal quelques minutes te li ci des ma continuer ko ak ñoom. sinon sinon li ma wax lépp je le maintiens en extenso lépp lépp lépp li ma fi wax je le maintiens kenn ku ci bëgg waxtaan nag wala ku ci bëgg leneen mën nañ ko mën nañ ko beral waxtu waxtu boppam li ma wax ci Yazid ak laanu bi ma ko laanu yi tamit je le maintiens quand commencé wul ci man imam Ahmad ibn Hanbal euh, rahimahullah bokk na ci ñi daan laanu Yazid ibn Muawiya biñ ko laajee mu am na sax aaya alxuraan bu mu sukkandikoo yaakaar naa nag ñàkka laanu ku dagg bopp njabootu yonent bi sallallahu alayhi yow mi koy ñàkk laanu yow la ñu war a xool say mbir alors on continue والحديث باعتبار منتهى السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام maanaam xadis suñu suñu tenir compte ci jeexintalu sanad bi jeexintalu isna maanaam terminaison bi dafay am ñetti xaaj voilà permettez-moi ma couper len peut-être goudi inshallah allah mën nañu am ñu def live inshallah si le temps nous le permet merci beaucoup et merci d'être présent